wàññilal wa te karabaale jéem a rafet ji ko mu yokkul toog daaraale jéem a dem bokk wala gànnaar jàngaane te yalwaan bu dee ba ca ngottali saa yéene ndax ñu xamal ma fa laayoo ma man di ñaan ndox ma def ko meew ci baati faatu yàlla ko moom ay kayiteeroo gi man yàlla ko wallu ne kon du jaaxle néegu teraanga bi ma sampaloon jën yaa ngi daanoo malaanum sutura mi ma yiiroon seet naa ko réer na faatooma mataloon na ka muy dem may manqué mooma daa digal ni ñu yore njaboot gi faatoo daa sonn ci taaw gàll doxewul ci santaane surga yeeg na yu gën mën yéen a jaaxle tegoon nañu ma kunjalam doy te maa gën a néew de ma denc kat budul dóor du dóor le dama samp kër gi faatu samp yaa toog muñ le faatu dem na léegi kër gi danaa ko tayle kër gi danaa seesa ci firdoogi sooseew ten ku yëg nañu dem gi ba kenn dootu fi jaar si muy man kenn secretul yëgal ma kenn dootu ma waxtaan leew dara réeratul ci kër ba ñu jim ma koo seetle njaat ca mbuur a ngi may kër gi kenn dematuma naw le baa suulee gor salaa xam ni dinaa niil bu baax doon lu muy teere sama ne mat la taare ak matam la dikkaale ba mu dem moom la ñu baale faatoo ma daa sagal ci sama biiri nawle naa loo gis ci man soxla ko jaayal mbaa tayle te wan na tara mbaaj te wan na waane musula génn kër gi lu dul ni maa ko yónni daawul xir ci laajam amal na xel du som ne musuma koo wax mu teg ca baat du kekkentoo ko ñaaw ne guddaay moo gore maandu sayir ak baatin na nga am fulla lu jafe ci soo daan maa ngi dund léegi rek dund gore yaaloow wowuma tooyuma sëñ bi ma ñaanoow keroog dëj ba laa ne moo ñàkk ay noon ñii di naqaroo ka jooy ñi di sago di ñaan rafet ci koom gay neex tom mat la xaritoog waane dellu na wuru daj jëmm jaa jikko jële yàlla ni roode miin bëgg am noonu daam waale musuma saralu mukk duma wax mu maam kiil ma daamu ma yébaane fonkul woon kujj ba waayewul def ma bañaan du woon jeeg bu naanee bu doroo balaa ngërëm dama jigul du jëf taxaw ko naa tooba saxal mbaa ma sulli bët yi ma yaay daa xoole rek la ma faatu daa xoole xëy ci saa ndigal di ca gont lii la ma daa moole billaay maa ko gërëm ba gërëm naa lu mu xëyee tool soppi ku naa jaam ci néegum ndeyam ba kene ñu may goreel démb faatu kii nag ku mu méttiwul ndey bu ma dee bu ca jaam si xarit mbaa doomi ma bàyyi naana géer ju bon ci daara lii du baaxam ndof la faatu góor ñi buñ la xesee yab lu ñu yëkkatee di teg la mu ne leen jaay siwuma juddu kat akub taar fekk siwuma saab nawle ku gis sab sang na nga jaamu ko may nga raw kaaje libi door yi ku bëgg ma bàyyee laaw koo jiitu àllaaxira ko ngërëm bu la fekkee ndaw la